Restez toujours informés sur SeneInfo xibaar yu wóor te ci bile jamono Restez toujours informés sur SeneInfo xibaar yu wóor la mburu bi yu wóor te doxale jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wër te leer ci bile jamono info point net seen international jërë ngeen jëf li am mbégte ak contentement ba di ànd ak yéen ci seen yoor yooru seen info ci loolu ba tey du ma ci wéet benn yoon damay bàyyi sama nattango bii di buux siin nu ku ma Ndofène Diouf mu nuyoo ñu dal di jàll ak yéen ci yoor yooru seen info buux siin maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di nuyu itam mbokku internet yi ñuy bàyyi xel saa su ci suñu différentes plateformes yi di Seneinfo point net site bi Seneinfo international bi ak réseaux sociaux yi nga xam ne yëpp ñu ngi fa ko demaat mbégte bu baax di leen dalal ci Yoor Yooru Seneinfo di la delloo jaajëfal euh, Bour Sine comme ni nga ko waxee ñu ngi leen di jaajëfal bu baax yéen ñu ñuy suivre à travers suñuy plateforme si loolu Bour Sine xam naa dañuy jàll rek si suñu xibaar yi nga xamante ne nii nañ ko waxtaanee tey si yor-yoru Sene Info laataa loolu tamit bëgg naa di jàllee bëgg naa jàllee ki nga xamante ne nii mooy meeru. Fann Point E di Palla Samb Point E nag euh, dafa dafa fekk ne dëkkoon naa fa loolu moo tax ñu ngi koy euh, jaale bu baax di jaale famem suñu jógee ci loolu tey dinañ waxtaan ci cinq points bu ci njëkk rek mooy observation à croissant lunaire bi nga xamante ne nii séntu bu njëkk pour euh, Ramadan bi ñu jëm ñu ngi koy amal mercredi incha allah. su ma juumulee loolu yëpp dinañ ci ñëw ak ay yaatal si loolu ñu ñëw si passeport bi nga xamante ne nii waa PASTEF ñu ngi koy demandé à ce ñu jox ko kii di Ousmane Sonko ndax mu mën a dem faju ji euh, ndax mu mën a génn réew mi ngir affaire santé dinañ ñëwaat tamit si li xewoon si 16 mars bi ñu jóge ci loolu ba tey ñu ñëw ax ah, mitin bi nga xam ni Bougane Gueye Dany waroon na ko amal euh, samedi bi mitin bi nag jotut a am te ba mu desee une temps si lu ñu wax ni si lañ koy doog a yónnee par euh, WhatsApp di ko xamal ne doog nañ ko autorisé ba tey ñu indi si waat ay yaata rekk di continuer ak euh, ASAM bi nga xam ne ñu doon. dañu doon inauguré benn centre bi nga xam ne day jël en charge les malade mentaux loolu nag nekk loo xam ne dafa am solo torop ci mim réew di ci ñëwaat ñu jeexalee suñu waxtaan ak arrestation ki nga xam ne moo di Cheikh Oumar Diagne ak kii di Karim Xurum Xaax ñi nga xam ne actuellement ba fii ñuy waxaax yéen ñi dañoo nekk en garde à vue loolu yëpp laataa ñu si waxtaan buur siin xam naa dañuy ñëw si suñu point bu njëkk rek si loolu mooy euh, seen tuub weeru koor bi nga xam ne dinañ ko amal mercredi su ma juumulee incha allah si loolu tamit kii di imam Ahmadou Makhtar Kanté comme nu mu ko doon defee saay su nekk rek moom mi nga xam ne nekk na si chercheur en astronomie moom nag dina si ñëwaat di xam xamle ne dinañ defal séntu bi ci mercredi si àllarba bi ñu jëm ndaxte weeru koor gi suñu juumul war nañ kaa amal jeudi loolu yëpp buux siin ma bàyyi la nga indi si ay leer ay euh, leeral rek waaye laata loolu may dellu fi ma commencé mooy di jaale kii di meeru Pala Samb démb la ñuy xamal nii génne na àdduna fameem doon euh, doon dëggal boobu leen nouvelle boobu leen xibaar bu naqari bi nga xam ne jot nañ ko ma bàyyi la buux siin nga indi ay yaatal ci suñu premier point mooy séentu bu njëkk ci weeru koor gi ñu jëm waaw soxna Sall di la jaajëfal xam naa damay tàmbalee rek yow tam foofu nga tàmbalee muy jàll ki nga xam ne moo nekkoon euh, meeru Fann Point E ak Amitié di Palla Samb mi génn àdduna démb comme ñu ko waxee ci dimanche bi noonu la ñu xibaar bi muy nag lu tiis dee moom saa yu ko tàggee rek xibaar bu tiis lay doon. Mm-hmm. kon fi mu ne ay mbokkam ñu ci tiis ñu leen di koy jaale. di ko jaale it Khalifa Ababacar Sall ndax moom ngi bokkoon ci taxawu Sénégal euh, soutien de taille la woon bu Khalifa Ababacar Sall ko ñu ngi koy jaale wante dégg rafet yi nga xam ne nit ñi seede nañ ko wax dëgg yàlla ay seede hmm. ku ku ku koo xam ne doon nekk ci ay coow ak yi ni mel loolu lépp daal ko comme koy ñaanal euh, seede yooyu yàlla fekk. ci biir bàmmeelam yàlla gën a xare ko àjjana waaw comme ni ko waxee rek euh, tey point bu njëkk bi ñu ngi ko jàllale mbirum observation maanaam séntu di ñuy séntu li nga xam ne moom mooy euh, weer wi ngir nag euh, weeru koor ngir tàmbali li nga xam ne kon moom mooy kooru ko ren gi comme ni nga ko waxee ñi nga xam ne ñoom ñooy waa commission national d' observation bu croissant lunaire bi xam ne nañ ne alarba la ñuy amal boobule sentu kon ñu mën cee jàngat ne kon dinañ ko tàmbali peut-être kon jeudi ba lay doon bu fekkee kon mercredi la ñu séntu peut-être kon mën nañ jot ne premier jour bi kon xanaa euh, jeudi lay doon wante euh, loolu loolu ñu wax euh, dañoo nekk en phase ak imam Ahmed Makhtar Kanté xam nga moom euh, day faral di def ay gëstu ci wàllum astronomie moom imam macha allah nekk imam boo xam ne euh, dafa bëri daal ay kii daal ay facettes euh, nekk na ci loolu écrivain la en même temps conférencier la day amal ay jàngat ci comme loolu wàllum astronomie moom it bi mu ay jàngatam gis na ne ba suba mardi mardi wala tolloog 21 mars nee na li nga xam ne mooy croissant léegi adduna yëpp kenn du ko fi gis moom waaw gannaaw gannaaw jàngat yi nga xam ne kon def na ko ba gis astronomie nee na kon euh, mardi 21 euh, mars bi croissant lunaire mu ne kenn du gis ci li nga xam ne moom mooy euh, adduna bi yëpp la wax moom. Hmm. kon loolu peut-être nekk na en phase ak peut-être ñii ne mercredi la ñuy séntu. Hmm. kon ñu gis ne comme ñu gis ne ci mercredi ba. Hmm. séntu dina am moom it mu ñëwaat dëggal ne kon mercredi boobu. sax euh, dinañ gis li nga xam ne moom mooy kii bi ba ah, dina visible mhm. ci ay euh, zone te bokk na ci Sénégal euh, bëri yi nga xam ne kon dinañ ci visible mhm. kon ñu gis ne ñoom ñaar peut nekk nañ en phase beneen jàngati bi ma si mën a am mën a mooy mën naa am ren ñu jot ne dinañu umandoo li nga xam ne moom mooy koor gi mhm. ci ci ci ci benn quoi ñu def ko benn ndax Sénégal moom dañoo tàmm di woor de manière dispersée ñaari woor ñaari woor ñaari mais en tout cas Euh, à travers ñaari communi ñaari communi communication yi ñuy dégg bu moom mën nañ jot ne peut ren. Mhm. Euh, um bi dina doon dina doon benn loolu la ñuy ñaanal suñu doon mhm. benn incha man di am rek ñu wax euh, suñu mbokk pël yi ñu daal di pare ndaxte lu mu métti métti semaine bi koor gi na commencé incha allah buur di la jaajëfal si yooyu lay yaatal ñemewuñu xiif de ñemewuñu xiif benn yoon. <laughs> buur di la jaajëfal encore si yooyu lay yaatal yu am solo yi nga jot a indi. ci loolu tamit ñu ñëw si le 16 mars li fi jotoon a xew ak kii di Ousmane Sonko moom nag gis nañu ne waa Pastef ñuy demander à ce ñu remetre ko passeport am ndaxte dafa war a tukki ngir affaire wu santem loolu yëpp ñu gis ne jot na fay xew waaye 16 mars bu suñ ci delloo suñ si dellusee dañuy gis ne def nañu face ak. ak ay tension yu metti parce que boo xoolee ay bis jot na fi tàkk Auchan ñu taal ko fi yàq-yàq yi bëri na am na ay vol tout comme am na ay agression mu nekk loo xam si ñaari mort voilà kenn ki Médina la dëkk suñu benn confrère la nekk na journaliste tamit dafa doon yëngu si domaine boobu en même temps mu ngi nekkoon si camp kii di meeru Médina Bamba Fall fa la nekkoon Euh, jàppatuma tur bi sax mais suñu benn confrère la mu ngi dëkk ci Medina ñu di ko jaale ay mbokkam tamit euh, bu baax a baax ñu gis tamit kii di yarga si moom tamit ñu téye woon ko si parce que dañu doon wax ni dafa am benn substance bu mu sànni woon kii di Ousmane Sonko ginnaaw bi ñu ko jàppee nag mu di si indi ay leeral di xam ne ne vinaigre la yoroon sottiwu ko dara ndaxte dafa gis ne kii di Ousmane Sonko. Euh, lacrymogène yi sonaloon na ko torop mu ne moom euh, vinaigre la jëloon di ko ko sotti ngir jàppale ko mu mën a mu mën a asperger boobu la xeetu lacrymogène ci loolu tamit euh, ñu gis ne boobule projet ñu ngi ko boobu ñu ngi ko reporté ba le 30 mars ñu xoolaat encore ñuy laajte ba xam ndax Sénégal dafa pare ngir dundaat même chose bi nga xam te ne nii dund nañ ko tension yi nga xam ne dund nañ ko le 16 mars buur xam naa dama lay bàyyi tamit nga am ay nga indi si ay yaatal rek comme ni mu koy defee saay su nekk. comme ni nga ko waxee soxna Asel euh, am na solo euh, day loo xam ne lu ñuy déplorer la ay ay mm-hmm. événements yoo xam ne yu ñuy déplorer la te di ñaan euh, daal mu mu mu bañ fi am. comme ni nga mm-hmm. waxee ñu ngi wax ay. dèjà benn bakkan bu faatu rek dafa dafa bëri. Mhm. ñu na ñaari bakkan yoo xam ne si faatu c'est lié à c'est lié à affaire euh, affaire boobu noonu. Mhm. man damaa jàpp ne bi le procès dañ ko war a jeexal dañ ko war a jeexal ñi nga xam ne ñoo ko war a jeexal nekk si kaw nañ jéem a jeexal euh, nañ jéem a jeexal bi le bi le bi le procès ndax saa yu amee rek gis nga. Euh, ay ay faits déplorables moo fi am. Mhm. à part dee yàqu-yàqu yi nga xam ne. am na un peu partout ci ci ci dëkk bi arrestation ñu na quatre cent. personne ñoo xam ne teg nañ leen loxo d'ailleurs ñu ngi naan cinquante yi bisu tey bii lañ leen war a lañ leen lañ leen war a defee mhm. loolu lépp lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy dépro la léegi bu ñu ñëwaatee ci peut être cas Ousmane Sonko bi ñu ne dafa feebar ba ñu war ko évacuer ak tout ça comme ni nga ko waxee euh, waa jooju ñu teg loxo euh, ne kon. Mhm, da ko doon aspersion yar nga xam ma mais foofu li précision de taille mooy dañ ne maa ko Pastef la. maa ko Pastef la te peut être jóguloon pour def ko kon. kon noonu la demee parce que dañ ko. parce que dañoo foogoon ne si. loolu la bokk effectivement mais prix am moo tax précision bi am solo précision de taille boobu mooy kon maam parce que voilà kon peut être jóguloon loolu rek war na tax kon ñu xam ne peut être jóguloon pour def ko lu bon aussi it euh, ñu xam ne bokkul ci li nga xam ne kon mm. moom mooy fas de l'ordre wala leneen kon koo xam ne peut être euh, militant la sympathisant la wala boog militant mhm. li nga xam ne moom mooy Ousmane wax na euh, li nga xam ne moom moo taxoon kon mu def li mel tey nee na bineegar la mhm. euh, ci wér Sonko ak li laaj évacuation bi gis nañ bi mbir mi moom moo ñu ko amal ab xam na ne maanaam bi mu jógee daal euh, ci mbir mi yi ba ci mujjantal gi ñu gis ñu évacué ko fi mhm. nga xam ne moom mooy SAMU ci mujjantal ga itam xamal tamit foofu ne communiqué bu mu def ngir xam ne loolu moo tax ñu bàyyi ko mu génni parce que depuis mu jóge ci tribunal bi moom euh, Sonko mu ngi xam le ni dafa am ay jafe-jafe mais mënul woon a génn këram ngir dem faju ji ba ci guddi gi d'après gis nañu vidéo yi ci guddi gi lañ koy doog bàyyi mu doog génn këram ngir mën a dem euh, ca l'hôpital ba ngir faju ji léegi ñu ngi réclamé à ce que ñu delloo ko li nga xam ne peut moom mooy euh, passeport parce que li ni Sonko dafa nekk sous contrôle judiciaire dafa événement yi amoon euh, mars euh, bële mars deux euh, de vingt et un mu nekkoon ci li nga xam ne moom mooy contrôle judiciaire mais nag comme que instant bi moom bu particulier la ñàkkul justice am ay dispositifs yoo xam ne dañ ko teg ba koo xam ne nekk na ci daal comme cas yu mel ni cas particulier ñàkkul ñu mën koo permettre mm-hmm. mu dem fi nga xam ne peut être moom mooy bitim réew. Mhm. ngir faju boobu muy sàkku. Mhm. mu mën kaa dem faju waa Pastef laaj nañ ko gis na it euh, Alioune Tine bokk ci société civile. Mhm. njiital Africa Jom Center moom it mu ngi sàkku ci njiitu réew mi. Macky ngir euh, boobule daal loolu ñuy sàkku euh, ngir bàyyi ki leen di Sonko. mu dem mu dem mu dem mu dem faju ji ñu mën ko koo amal man it position boobu laa ma man ñoom laay fekki tey bu fekkee ne daal dem nañ beneen état de santé am na lu ñu si. si ñaaw xel wala demee noonu daal je vois que c' est très normal tey ñu permettre waaw bu fekkee ne moom à chaque il le souhaite parce que ba fii moom bi man dégg ko Ousmane Sonko mu àddu si. Mhm. moom wax wax ko ne dama bëgg dama bëgg mhm. ko ñeneen ñu ngi koy wax. Mhm. Euh, mais en tout cas bu fekkee ne loo xam ne volonté na moom man gis naa ne war nañ ko war nañ koo mën a def comme comme tout Sénégalais. boo xam ne peut-être sentir na besoin génn pour dem pour dem faju ji ñu yombal ko ko. bàyyi ko mu dem mu dëgg la Bour Sine euh, jërëjëf ñu ñëwaat si meeting bi nga xamante ne ni moom Bougane Gueye euh, Dany waroon na ko amal samedi bi ndaxte dañ doon wax ne femme gëm sa bopp ñoo ko waroon na investir ngir candidature am en 2024 waaye si loolu ñuy gis ne moom defoon na benn déposition benn déposé woon na demande à ce que ñu autoriser ko boobu les meeting waaye si li ñuy xamal mooy une heure avant heure bu mu demande woon lañ koy dog di yónnee message di nga xamal ni autorisé nañu boobule boobule meeting looloo tax meeting bi mënula am ndax te ñu ngi xam ne tamit une de temps avant meeting di nga war a gàddu chaise war a am yu bëri yoo xamante ne nii di ko indi si boobule lieu muy xam ne tamit ne une heure de temps mënatuñ faa def dara looloo waral boobule meeting mënatula am ma bàyyi la nga am loo ci indi rek laata ñuy continuer. peut-être jàngat mooy si njëkk a def euh, euh, moom mooy xanaa peut ñoom def lépp quoi nga xam ne it euh, même à ah, une heure de temps peut être bu ñu la teree man dama yaakaar samay sama sama sama xalaat nag lay mhm. bu fekkee peut être tegoon nañ seen lépp teg matériel yi. mais le fait que ñu ne les femmes xam nga affaire jigéen yombul jigéen mënu la préparé wu en ah, une heure de temps indi chaise indi bon. loolu ma jaaxal maanaam o peut être préparé wu ñoon mhm. mais bu fekkoon peut être tegoon nañ seen dispositif yëpp ba ñu kii après ñu andi nañ ko ñu ne ñu ne. mais mais que jaaduwul ma bàyyi ko. non effectivement li jaaxal la foofu naa ma ñëw. effectivement côté autorité bi tam loolu tam lu doy waar la. Mhm. boo xam ne peut na la à temps bu fekkee demandé ko à temps. Mhm. bu fekkee comme ni ñu waxee ne une heure de temps une heure de temps une heure de temps avant kii bi la ko la ko. ko joxe bu fekkente ne kooku ko na ko à temps moom loolu it du yoon loolu loolu loolu du jaadu ki day gis naa ne autorité bu fekkee ne maanaam euh, kii ki war a demandé def na demande à temps yow it sa rôle mooy nga informé ko à d'information gis nañ ne teel nañ ko demandé parce que ñoom si li ñu gis ñoom ñoo njëkk a déposé waa mouvement benn Bokk Yaakaar ñoom tamit dañoo déposé woon ngir amal euh, benn benn euh, ngir amal meeting foofu tamit. non ñoom seen bos. bos si li ma si li ma jàpp si li ma mujjee jàpp mujjeewuñu ko autorisé voilà ci li ma jàpp mujjee mujjeewuñu ko autorisé mais il paraît que ñoom sax dañoo bàyyi. su ma juumul daal information yooyu laa am que ñoom dañoo mujjee bàyyi boobu le meeting mais ñii di femme gëm sa bopp ñu ngi ñuy xamal ni une heure de temps avant meeting bi lañ leen daal di autoriser boobu le meeting. moom na waar mais man it euh, jaaxal na ma xanaa ñoom bu ñu organiser meeting xanaa nekkul ah wala boog a waaw ñu doog a taxawal affaire yi peut être loolu xanaa dañ doon xaar bañ leen a waaw mais pour man comme que meeting la da ngay mais waroon na fekk tam nga teg sa dispositif yëpp quoi par exemple pour man li ma jàpp nga teg lépp nga xam ne it euh, buñ ne la buñ la joxee dogal ak nu mu tuddoon pare woon nga quoi. Mhm. pare woon nga pare woon nga ko kii à l'avance. Mhm. nga xam ne teg nañ seen lépp buñ comme buñ leen tere buñ leen terewul lépp fekk pare woon nañ voilà fa lay loolu tamit si la bokk buur ñu ñëw ba tey ci Kaolack Assam mi nga xam ne dañu doon dañu doon inauguré benn centre de prise en charge bi nga xam ne dinañ ci jàppale ay malades mentaux di leen jël di leen euh, jël en charge loolu tamit mu nekk lu am solo loo xamante ne ni réew mi da koo soxla buur dafa nekk loo xamante ni dafa am euh, solo torop amoon nañ ko démb suma juumul si lekko ko amaloon voilà samedi bi samedi bi également dama lay bàyyi buur nga indi si ay yaatal rek. waaw loolu moom yaakaar naa pour pour natt pour natt am solo bi nga xam ne am na ko solo. Mm-hmm. nit ñi dañ ko xool ci mbedd bi rek ni ñuy dox ci mbedd bi mm-hmm. daje ñi nga xam ne ñoo amee feebar xel. bëri maanaam loolu boo ko gisee rek ci ngay nattu solos lan mooy solo centre bi nga xam ne nii. comme ni nga mm-hmm. waxee waa ASA muy association pour le suivi et l' assistance aux malades mentaux. inauguré nañ euh, seen euh, siège fële ca Kaolack muy nag ab siège boo xam ne yàgg na siège bi mu ngi a depuis 2004. Mhm. Euh, la ko kii di Ansoumana Dione nekk président bi acquérir doon ci nga xam ne mooy président Abdoulaye Wade gannaaw bi ñu ko may terrain président Abdoulaye Wade mu ne mu tabaxal ko ko ci mujjantal gi nag nee na dañ ci nguur Sénégal ci tegaatoon loxo. Mm-hmm. kon dañ cee tegaatoon loxo quoi boobu ba léegi nag mu nekk ci di xeex pour ñu restituer ko mm-hmm. nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy boobule centre yàgg na ci xeex en ce moment dafa nekk koo xam ne son Asel dafa yàgg xeex ci maanaam euh, assistance ay malade mentaux yooyu mm-hmm. maanaam lu ëpp ñaar fukki at lu ëpp ñaar fukki at dafa nekk ci xeex boobu lu ëpp ñaar fukki at ngir xeex ngir euh, ñi nga xam ne daal ñoom ñooy malade mentaux yooyu seen prise en charge ak yi ni xeex récemment nag ya na demandé nag euh, à ce que njiitu réew mi Macky Sall euh, recevoir ko na nag ñu waxtaan ci question boobu question santé mentale à chaque fois gis ne à chaque fois ministère yi fiy jaay da ngay gis ne day am benn tiraillement ci digg ak moom wax dafa gis ne taxawaay bi ñu waroon amal ci ñi nga xam ne ñoom ñooy malade mental amaluñ ko euh, ba tax à chaque fois dañ ko doon récemment nag njiit réew Macky Sall euh, recevoir na ko en audience ñu ko recevoir en audience aussi ñu waxtaan mu exposé ko li nga xam ne moom mooy problème boobu xamal ko itam ni ko il faut que centre boobu nga xam ne mu ngi Kaolack ñu restitué ko njiit réew mi euh, jox ko accord euh, ñu restitué ko li nga xam ne moom mooy centre bi njiit réew itam boole si ne ko dina ko alloué un montant de cinq cent millions de francs CFA annuellement pour boobule prise en charge Mhm. sant nag ci lañ doon amal li nga xam ne moom mooy kon inauguration centre bu am solo mhm. boobule foofu la ci kaw la fi ñu kon ca kaw la fa lañ koy mu ñuy xamal ne nag ci weer bi sax moom Ansoumana Dione dinañ commencé première prise en charge yi kon ñu tàmbali ko def boobule ci li nga xam ne moom mooy centre boobule dina am ay psychiatre ñoo xam ne peut seen seen seen seen technique loolu la ñoom la siy mhm. liggéeyal ak prise en nee na daal lu yàggul dara rek dinañ gis ne kon incha allah. changement dina am dina am ci loolu ndax loolu dafa am solo ñooñu dañoo nekk ñoo xam ne dañoo bokk ci société bi tamit quoi mm. mm. euh, ko ko ci amul ci sa famille peut-être xam nga koo xam ne am na ko wala yi demee euh, muy ñoo xam ne nag quoi dañ leen war a toppatoo dañ leen war a sàmm dañ leen war gunge kon lii de loolu daal lu ñuy rafetlu la day kii di euh, monsieur Diène Ansoumane ñu koy encouragé ci li nga xam man dama ko yàgg a topp nag ku ma yàgg la ku a topp la di si vraiment moo tax it keroog bi ko njiitu réew mi bi ko njiitu réew mi euh, dalalee dama si kontaanoon. Mm-hmm. ñu yëgal ko ko euh, kon di ko ñaanal rek li nga xam ne kon moom mooy mission boobu. Mm-hmm. yàlla dimbale ko si mu am si ndam incha allah. waxee buur nekk na lu am solo tamit parce que boo xoolee loolu lañ koy gis fi réew mi toll dafa bëri trop surtout man euh, li ma ciy gën a touché mooy jigéen ñi nga xamante ne ni euh, bokk na ci tamit dañuy exposé wu au danger danger bu nekk dina am ci dinañ ko faire face. dañ leen di suivre lu ci ëpp lu ci bëri bu dangay gis ay jigéen yoo xam te ne dañuy jékki jur doom genre affaire yooyu bëri na ci daal kon li mu taxawal ni comme ni nga ko waxee nekk na lu am solo mhm. dañ ko siy encouragé rek maanaam dinañ leen prise en charge par le côté médical ba pare tam benn réinsertion bu ñu leen gungee maanaam ba seen xel dellu si waat mhm. ñu xool nañ moom mooy société bi voilà dina dina gën a tax dina tax ñu gën a am euh, bile sécurité bi nga xamante ne ni dañ koy soxla ndaxte koo xamante ne ni warul buur xamul dara ko warul doo doo xam dara si loolu bu nekk na lu am solo xam naa dañ koy jeexalee rek ak arrestation ki nga xam ne moo di Cheikh Omar Diagne ak Karim Xurum Xax ñu gis ne ñoom nag ñu ngi leen euh, jàpp ni ki démb suma ma juumul démb lañ leen jàpp di leen pour poursuivre pour appel à l'insurrection appel à la violence contre les institutions et atteinte à la sécurité de l'État mm. bu ñu gisee nag ki di Cheikh ki di Cheikh Omar Diagne moom nag ginnaaw bi ñu ko téyee actuellement fi ñu waxaa yéen ñoom ñu ngi en garde à vue kii di Cheikh Oumar Diagne nag daal na di si yëkkati ay kàddu bañ koo laajee xamle na ne liñ koy tuumal def ko benn yoon waaye da doon woo du mat un million de sénégalais à ce ñu xamal Macky Sall pour mu jóge fi pour mu jóge fi mais kii di ak kii di mais kii di Karim Xurum Xaar bu ñu xoolee moom dafa garder le silence loolu la ñu seeni avocat seeni avocat maître Khoureyssi Ba moo ñu koy xamal ne kii di xari Karim Xurum Xaar moom mu nanguwul woon tontu benn yoon si yooyu les questions yi nga xam ne ñu ngi ko ko doon euh, laaj euh, buur. waaw euh, comme ni nga ko waxee noonu rek Karim Xrum Xax ak ñi nga xam ne ki nga xam ne moom mooy kon professeur Cheikh Omar Diagne nekk nañ ñoo ne fois yàgg nañ ñoom moom bi mooy énième fois ñu leen di teg loxo comme ni nga ko waxee peut-être restriction ak à l'insurrection ak mm-hmm. ñu mel lañ leen lañ leen lañ leen lañ leen mm-hmm. jàppee mais nag bu fàtte ne ñoom. fi mu nekk nii euh, dañoo nekkoon ci euh, nan ko mën a woowee sax contrôle judiciaire. Mhm. ndax xam na bu yàggul dara rek lañ leen bàyyi kaso. Mhm. bu yàggul dara rek lañ leen bàyyi kon ñu nekkoon ci contrôle euh, judiciaire. Mhm. te maanaam contrôle judiciaire boo si nekkee. day yombaat pour ñu jàpp la. contrôle judiciaire boo si nekkee yaa am dañ lay bàyyi mais dañ lay tëggal dañ naan la bàyyi nañ la woon te tëggal la gët tey maanaam boo defee leneen ci kii bi rek ñu demee noonu léegi def nañ nag lii ñu ne ñoom jàppee nañ ne ñu autorités yi jàppee nañ ne appel à l'insurrection la wala kii atteinte sûreté état yi ñu mel donc ñoom jàpp nañ ne ñoom defuñ loolu ñoom jàpp nañ ne peut-être dañoo woote rek appel à résistance la ñu woo ñi nga xam ne ñoom ñooy Sénégal yi comme ni ko Cheikh Omar Diagne wax na loolu kenn pour taqit posture bi nga xam ne adopté na ko ñu ñu ñu ñu bañ lànk bañ a wuyu loolu it droit am la droit am la bu ko neexee it mën nañ la laaj nga lànk ba ñu wuyu ba léegi ci ci droit am ci droit am la bokk euh, lu ci en tout cas instant yi boo moytu li ñuy njort mooy ñu delloo leen kaso comme ni ñu leen defoon. jàppoon delloo leen kaso mën nañ leen bàyyi it. mën nañ leen bàyyi instant yi jàpp nañ leen bàyyi. comme mën nañ leen euh, delloo kaso lu mu ci mënti am daal man man instant yi dama yaakaar ne posture bi nga xam ne war nañ koo am muy côté autorité bi muy côté ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, opposition mooy société civile. ñuy ñuy ñuy ñuy tempéré quoi nañuy tempéré muy mm. ñaar yëpp ku nekk nay bàyyi dara ku nekk nay bàyyi dara quoi mais ak mais bu fekkee ne bu nekk day. day jàpp fekkee waaw état à chaque fois day waaw day wane autorité am. Mm-hmm. jàpp fi mu jàpp fekkee ne euh, opposition wala société civile société mm-hmm. civile à chaque fois tam ñoom euh, nañu dañuy xam rek lu ñu dellu ginnaaw. Mm-hmm. finalement fi muy yóbbu dëkk bi mooy mooy moo nar a doy waar rek. comme ñaari côté yëpp daal ñu ngi ñaan ci nekk. dafa nekk loo xam ne dafa metti nguur dafa métti quoi xale nguur dafa nguur dafa métti te it ñoom war nañ pour man war nañ di xalaat it yenn saa yi seen ay njaboot ak suñu nekk seen ginnaaw mhm. ak yooyu yëpp parce que lii tey buñ la jàppee nga tëdd kasoo say njaboot du du dañuy dañuy kii quoi dañ nekk si kii loolu war nañ di xalaat à chaque fois répété wu à chaque fois ñoom bàyyi nañ leen yàggul dara kii di Karim ba pare ñu ñëwaat encore jàppaat la te kenn xamul fii ak ah kañ lay jeex. Ah, résistance moom dafa am ku résister moom ñu ñu noot la. Mhm. mais it euh, peut être ma leen ma doon waxee ma leen bi. Mhm. est ce que xoolaat it seen est ce que duñu seen seen seen euh, ba tax daal euh, yu nii ñu mën di ko moytu quoi. Mhm. dëgg la bu. nekk lu am solo xam naa fii la ñuy jeexalee rek yor yor bi dama lay bàyyi nga tàggatoo ak internet ñu daal di tëj ba ginnaaw ëllëg incha allah. waaw di la jaajëfal soxna Sène bu baax a baax euh, ci mhm. euh, solo yi jàngat def di jaajëfal it suñu cadreur mhm. euh, Abdel Diallo di ko wax tàmbali na. non mhm. waaj <laughs> jeudi moom am jeudi am. jeudi añ <laughs> ñaan nag koor googu ñu yegg si ak jàmm. incha allah di ñaanit leen yal nañ ko umandoo ñun ñëpp ñu mm-hmm. umandoo ko si jàmm koor ko si jàmm mm-hmm. jeexale ko si jàmm te yàlla nangul ñu ko euh, di jox dig daje kon euh, àllarba ak mm-hmm. beneen numéro euh, amin bu di la jaajëfal tamit bu baax a baax di jaajëfal suñu cadreur comme ni ñu koy waxee saa su nekk rek di jaajëfal internet yi nga xam ne ñu ngi ñu suivre à travers suñuy plateforme di leen jox dig daje ginnaaw ëllëg incha allah jërë ngeen jëf fii y yu wóor te leer ci bile jamono restez toujours informés sur SeneInfo xibaar yu wóor te leer ci bile jamono fii la mburu bi tàngee fii lay xayam xayamee xibaar yu wóor te leer ci bile jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wóor te leer ci biir jamono.